waaw jërëjëf Fall Yaram ñu ngi seen xam naa nag euh, duñ jeexal ci rawatina ci waxuñ ci tolluwaayu réew mi jamono jii ndax ndaw ñi nga xam ne ñoom la ñooy nekk mbedd mi tam dañoo amaat kër yu ñuy dellu siwaat amaat ay ay ay ay ay ay wéeruwaay nu ñu koy waxee ci waxtu wi Fall jot na ñuy dégg ay kàddu yoo xam ne nii bu waxtu bi tollee fii ci rawatina ñenn ñi nga xam ne ñu ngi sañ wax ñi nga xam ne. waaw waaw moom lay moom xam nga mënuñ ma mënuñ ma bokk seen kilifa. ngay bàyyi sa bàyyi sa bopp sa kii ak sa baat te ñu ñoo jox suñu muntaxaa suñu lépp bàyyi suñu lépp waaye nag bu fekkoon daal sañ na wax dara daal di ko jëmee ci ndaw ñi daal mooy ñu gën a fonkaat njàng mi gën a fonk ko ci amul ku ci nekk ci liggéey nga gën fonk sa liggéey gën a respecté kilifa yi kenn ku nekk nga fonk sa wajur ku am sa kilifa nga fonk ko li sëñ bi daan wàccan saxiir naa ñu waxoon kabir wàcce kabir nañu saxiir ndaw ñi nañ léeg-léeg mag ñi mag ñi nañ yërëm ndaw ñi loolu bu amee rek jàmm mooy am ci àdduna bi fépp na ci àdduna bi bépp laa ba mu jàmm fee am li des na nga xam ne mooy wàllu politique wàllu kii moom politique bi moom euh, nañu gën a yërëmante seen biir rek te xam ne ñoom ñëpp ku nekk la ngay xëcc ak la ngay xëccu di ko jëmee sa bopp it lenn la ngeen ngeen di xëccu waaw lenn la ñuy xëccu lenn la ñuy xëcc te it ñoom ñëpp jàpp naa ne bëgg muy defar réew mi defar Sénégal ñoom ñëpp nag muy opposition bi di pouvoir bi ñoom ñëpp seen yéene mooy defar Sénégal Sénégal jëm kanam kon nag ñoom gis naa ñoom war ñoom seen bopp war nañoo maa toog waxtaan waaw. kay ñoom seen bëgg-bëgg yëpp muy opposition bi muy muy président Macky Sall ak président Sonko des am na yeneen ci des ah ba ci PDS dégg nga PDS dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga dégg daal mel ni mbir mi moom la ñu mu defar ko kaas benn kaas daal moo taxal daje toog waxtaan waaw waxtaanee réew mi euh, ndax réew mi toll na foofu waaw tey nag ñu bàyyi kilifa yi teg pression nam naan na kilifa yi wax na xalif général yi yi kilifa yi leen war ñu ngi ci waaw leen war ñu ngi ci mënuñu mënuñoo teg jël benn personne ko teg xalif général yi. wala kilifa yi ba mu wax te yàlla wax loolu leen ñoom ñoom am na am nañ ko ñu déglu kenn kilifa yi am nañ ko ñu déglu waaw ñoom ki ñu déglu xam nañ ko waaw te ñoom lu war xam nañ kon nañ leen bàyyi nii nii nan nañ wax ak nañ def ndàngam su ko defee ñoom ñi nga xam ne ñooy ëttu ëttu politique bi ñoom ñu jéem a consulté seen biir a daje waaw war nañoo maa daje ndax si réew mi doo nga leen ñor mooy fekkee fekkee réew mi jàpp naa war nañoo maa daje waaw ni moo jiite réew mi ci le 3 avril bi muy def déclaration wax na lu mel noonu woote na nañ ñëw ñu ñu ñu ñu ñu dajaloo. waaw waaw léegi wax na ko léegi ñooy dégg nañ ko mais nga bindoo lettre yónnee leen xam ne boo ndax boo koy xam ne ñoom la ñu woowee doo jékki-jékki ne woo naa maam Thierno wala woo naa Basiirou daa pare day bind ay lettre xam na ko yónnee ko seen seen seen convoqué leen ak ay carte d'invitation invité ci la muy def. mën na leen éviter seen ndogu weeru koor jeexagul mu éviter leen ndogu ab jullit xanaa boo ko wee ci weeru koor ndogu éviter ko teyit loole teyit bu ñuy ànd àndam mu nekk lu sincère daal nga xam ne day day nekk àndub jaayante àndub jaayante tàggoo jëwante li seen misaal nga ànd jaayante tàggoo jëwante mu bañ koo doon mu nekk nekk ànd bu dëgg waaw ànd boobu dëgg boo xam ne defar réew mi rek moo leen tax a jóg su ndax réew mi ñun ñëpp ko bokk waaw ñun ñëpp ko bokk te bu jàmm amul kenn du nelaw te fitna baaxut ak fitnatu naax mun naa la ma la saxaa fitna day nelaw yàlla rëbb na ko koy yee waaw fitna baaxut kon nañ ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yëpp waaw boo defee eh, yi ñu yëkkati yi xam ne yéen boo lu yëkkati te xam mën a taal fitna ñu teg ko ci suuf waaw mu lu mu tuut tuut ñu teg ko suuf te jéem a daje nag ñoom waxtaan seen biir bu waxtaanee eh, solution dina am waaw lu mu maa doon boog waxtaanee rek ndax gis nga àdduna bi même même guerre yi guerre mondiale yëpp ci waxtaan lañ ko mujj waxtaanee ko ma mais xeex rek léwu ko solution bi amul amul benn conflit boo xam ne ci adduna bi dafa dafa terminé ci xeex dañuy dem ba yaay ñooy naan toog teg gànnaay wéer gànnaay waxtaan kon ñoom nañ waxtaan seen biir te xam ne réew mi daal ñoo ko bokk tey ndaw ñi ñu xettal leen ci nangoo jàng ak nangoo liggéey dégg nga ku ci ku ci am say sa sa militant nga wax leen ñu dem uti seen i seen i carte électeur toog la waaw loolu daal kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu moom defal lu jàmm yàlla ñu ko téye na ngeen téye wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh